mbokk yi. dafa di réew boo xam ne dafa am nu mu nag mooy réew gëm-gëm la gëm-gëm yi ci gën a fës mooy diiney catholique ak diiney jullit jullit ñi nag gën a bëri ci lim ci réew mi boo waxee jullit nag wax alquranul karim ndax ñaar kenn mënu ko taqali bo génne woon alquran ci julit ni ay nit nga am way amoto ay julit alquran nak lu ñuy jàng la lu ñuy meublé kër luñuy ñuy fas ci dënn diko tari si julli ak diko tari pour ko xol motax lepp lu jëm ci lola ndax sénégalais numu saggan saggan saggan saggan ci dinem bëgg na doomam jàng alxuraan la preuve vacances yi bu jotee ba koñ boo dem di nga fa fekk ci koj ci biir koñ bi ku improviser ubbi benn daara kenn ku ne jël doom yóbbu ko fa nga xam ne bu mënul doon xaafizul quran comme soxna jatara au moins mu am lu mu taree julleem kon loolu besoin la ci sénégalais yi ni faju nekkee besoin am ndox courant ak spiritualité. ak leen besoin la spiritualité nekkee besoin ci Sénégalais yi moo nous ñun suñu modèle ndax day am modèle suñu modèle donte dañ ne tëgg nañ ko ci laïcité laïcité bu ak di saytu di waaye du boo xam ne dafa dafa beddi diine dafa di diine dàq diine loolu nañ ko wuti ji feneen ba tax nag bu ngeen xoolee ci programme mu son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay muy continuité ci ñun suñu doctrine politique bi ñu commencé ci politique ba léegi ndax di nga ko fekk ci livre bi ma bindoon man muy solution di nga ko fekk suñu programme 2019 fekk ko ci programme président Bassirou Diomaye Faye ci 2024 bi mooy dañu jàpp ni la jëm ci diine faw rek ñu institutionnaliser ko ndax fi mu ne nii lu informel la au nom de la moo tax ñu ne bu soobee yàlla ci budget 2025 bi bu ñuy voté loi de finance ñuy voté des crédit ne lii pour paj mi la lii pour càmm gi la lii pour mbay mi la lii pour lii lii noonu la ñuy voté un budget pour le culte boo xam ne dina mën a jàppale diine gi moo xam di jàppale nit ñi ci liir de culte yi jumaa yeeg mosquée euh, église yeeg ñoom seen waaye na mën a jàppale njàngale bi aussi mooy daara yi ak yeneen yu ni mel loolu dafa am solo moo tax ñu leen rassuré ni mbirum daara yitte gu rëy la ci ñun président ba Bassirou Diomaye école bi mu yóbbu doomam mu fay jànge école boo xam ne la day jàngale alquran bi jàngale tubaab kon kooku daara ñor na ko man mii di wax ak yéen sama kër dama fa ubbi daara tey soo demee di nga fa fekk xale yi ñuy jàng kon ñu ngi dalal seen xel soxna si te du yem ci loolu waaye monsieur le ministre éducation gi nii lu ñuy def ba ñiy jóge ci njàngale diine gi nu ñuy def ba njàngale diine gi ñu articuler ko ak ay yeneen xeetu njàngale ak yeneen xeetu formation ba yombal leen après seen insertion ñoom it dans les milieux socioprofessionnels loolu it yitte la ci ñun ma ciy profité nag di daaneel ni dama wax léegi suñu modèle te am na loo xam ne dootuñu ko mën a nangu ci réew mu mel ni Sénégal gis nga boo demee ci tubaab yi loo wax ñu ne la ñun notre modèle notre style de vie ndax ñoom dañoo am seen modèle assumé ko seen modèle lañ jàpp ni moom la ñuy saytu donte ñun ànduñoo ak seen model ñoom waaye seen dëkk la ñoo ko moom ñu jàpp ni seen model lañuy saytu ba tey xale bu jigéen bu jël fulaa teg ci boppam ne day dem jàngi ci école France ñu ne ko doo dugg ci ecole bi suñ ko defee seen réew naqarlu nañ ko waaye am nañu sañ-sañ bi ci ñoo xam ne dañoo woote démocratie ak liberté ak tolérance loolu du tolérance ci noonu rek lañu ñu mën a lu nangu fii Sénégal ak école bu mu munti doon jàpp ni nit du dugg ci école bi du fi jàngee parce que am na fulaar bu mu teg ci bopp loolu du yoon suñu responsabilité la xale yépp la ñu yemale ki teg fulaar ak ki tegul fulaar gën wuñu parce que kii teg na fulaar wala tegu ko c'est un choix waaye ñoom ñépp dañu war a jox les mêmes chances tey boo xoolee récipiendaire concours général yi defe naa ñi teg fulaat ñoo ci ëpp fuuf kon système tolérance bi ñu am ci réew mi kenn ku ne mën a def ses choix et ses options tolérer ñeneen ñi seen choix ak seen options te ñu mën a ànd ci jàmm loolu moo fi wéy bu soobee yàlla kon ñu ngi rassurer ñëpp ni ñu it dañoo am suñu modèle du ñuy tubaab ay nit ñu ñuul lañu ay nitu gëm-gëm lañu. société tolérance ñu am te loolu fi wéy merci beaucoup